mais ñun bu ñu demee bay voter c'est pour que ñu mën fee teg koo xamante ne tey bu daam Nature indi ay circonstances kooku dina mën a def en sorte que lool du gaañ dina wàññi gaañ-gaañ bi muy gaañ askan bi moo tax ñuy fay Macky moo tax ñuy fay ay ministre moo tax ñuy fay ay maire moo tax ñuy fay ay député mais tey dañu tollu ci maire il faut qu'on s'arrête que sur les trucs de maire parce que dañu tàmm nee nañu aller première communion nit yi zappé nañu Euh, à la première communion demaat keneen on a l'habitude à faire euh, faire du coq tey nag dañuy figé wu ci benn élection boo xamante ni Macky Sall bañ na ko def mu nekk élection municipale yi nga xamante ni moo war a dem te man li ma gën a métti ci élection municipale yi mooy caution bi nga xamante ni moom la ñu jox daan la ñu jox maire yi imposer leen ne maire bu nekk loolu la war a am caution boobu mu nekk benn caution boo xamante ne c'est très discriminatoire parce ak caution boobu nga xamante ne moom la leen Macky Sall imposé muy 20 millions loolu mooy wane ne ne tey ku am xaalis mooy doon maire waxtu wutatuñu compétence mais ku am xaalis mooy doon maire ku amul xaalis doo doon maire tey je vais vous donner exemple tout compte tey bu amoon benn xale bu nekk ci koñ bi par exemple jàng luy environnement xam lan mooy environnement mun a dimbale askanam ci dëkk bi mais amul 20 million mu am ku tudd Farba Ngom nga xam te ne jàngul mënul bind puuskatu brouette far ba ngoom am 20 millions ba ngoom mooy dem nekk meeru koñ ba te Farba Ngom amalul njëriñ benn waa amalul njëriñ waa koñ bi léegi nag Issa Diène maa lay bu baax a baax léegi nag fléau boobu noonu problème boobu noonu il faut que ñu résoudre ko dès à présent gis nga boo leen gisee boo leen defee tuur ñi revendiquer yëpp dañ naan xale yi amuñu liggéey xale yi am nañ diplôme amuñu liggéey xale yaa ngi taxawaalu xale yi taxawaalu yooyu yëpp boo leen xoolee amul kenn ku ci am 20 millions léegi bu fekkente ne paa ba nekk ci koñ ba ya xam jeex na munul dara <clears throat> mooy munul dara dara munul bind munul liir mais am na 20 millions kooku la ñuy élire maire la leen mag saal bëgg a yóbbu mooy il veut vous pousser à voter pour des débiles mentaux parce que qu'avoir de l'argent n'est pas forcément avoir des compétence tey on nous mène dans une société discriminatoire boo xamante ne baa doole bi am na droit voter mais amul droit présenté wu bu leen fàtte ne apartheid yàggut buñ ko abolire dañu ne woon nit ku ñuul ki amuloon droit de vote nit ku ñuul ki amuloon droit toog ci yenn euh, bus yi nit ku ñuul ki amuloon droit jege tubaab bi tubaab bi moo nekkoon priorité tey ñun lu ñu utile apartheid mooy discrimination bi c'est entre le pauvre et le riche tey cette discrimination dañ ko def suñu bopp yi ba nga xam te ne incrusté ko suñu bopp boo leen gisee ba Bougane Gueye Dany jóg naan kuy maye booli moo gën kuy joxey wax ngeen xam ne ne le mal est très profond dañu bëgg a defal société boo xamante ne moo tax ça ne vous que dans dans cette société ku am mooy nekk dara ku amul mooy nekk du nekk dara day dem ba yéen doomu baadoola yi dañuy dem ba seen doom yi sax duñ leen considérer parce que vous n'avez rien parce que la société a fait en ku am la ñuy fal ku amul duñ ko fal tey ci société boobu lañ leen bëgg a yóbbu mais fàttaliku ne Macky Sall euh, loi bi mu bëgg a teg ne ku bëgg a nekk maire i faut nga joxe il faut nga am 20 millions na fàttaliku ne buñ ci tollu woon yaayam da doon jaay gerte te yaayam amuloon 20 millions kon tey. cette discrimination là bu fekkonte ne appliqué woon nañ koy il y a longtemps quand il était pas avoir la chance de réussir foofu nag la ñuy dellu see ci caractère u baadoola Macky la mooy baadoola première catégorie baadoola day fàtte fu mu jógee baadoola day fàtte ku ko fal baadoola day fàtte ku koy fay baadoola day fàtte ne day dem douche baadoola day fàtte ne ni nit la moo nekk lépp li nga xamante ne moom la ñuy retrouver ci président Macky Sall boo mu ne lan mooy baadoola day fàtte ku ko fal dinaa leen ne Macky Sall tey Covid bi ñëw na ba mu demee ci école des MEDEF solul masque te ñoo ñu faluñu ko mais ñun ñi ko fal dem dem ba ci urne ba votel ka ñun bu ñuy jege léegi day day takk masque parce que pour moom ñun ay virus la yu ñun a corona ñoo yem. may fàttaliku Macky Sall ne peuple sénégalais bu fekkante ne da leen yemale corona kon corona bu baax la parce que ñooñu mu tollantee la corona ba nga xamante ne bu leen jegewee day sol masque bu jegewee ñoom Macron du sol masque ñoom Macron faluñu ko ñun ñoo ko fal. kon tey pour corona bu baax la ñu ñun population sénégalaise corona bu baax la ñu ci Macky Sall parce que ñun ñoo koy servir ñun lay utiliser pour être riche sans nous il rien. kon bu fekkante ne corona yi rey nit yëpp ni Sénégal la may ma xam ne kon ñun sénégalais ñun ñoo gën ci corona yi parce que ñun ñooy sàq ay ay milliardaires ñun ñooy créer ay milliardaires ñun la nit di ñëw sàcc ñu doon milliardaire Pape Mballo maa leen nuyu bu baax a baax ñun la nit ñëw rek ñu ne ko maire la wala député la rek mu doon milliardaire bu fekkee ni ñun Macky Sall daf ñu méngaloo corona ba bu yegsee si ñun day sol masque kon ñun corona bu baax lañu bu fekkee ne Marème fay Sall ñun tamit ñun lay méngale ba bu bu laalee sagar bu ñu laal sax day fomp loxo bi parce que ñun ñooy virus bi nga xam te ne on ni contagieux ñun ñoo gën a gaaw a rey corona moo tax ku ñu jege ku ñu laal si ñoom seen askan day fomp loxo bi Jonathan maa leen nuyu bu baax a baax mais fàttaliku sénégalais yi ne nit day xam boppam man dooma duma la fal ba pare nga may yàpp te tey da ngeen fal Macky Sall mu leen di yàpp ngeen fal Macky Sall mu war a organiser ay élections ci benn dure précis précise du moins tey maire yi ils sont élus pour cinq ans seen mandat jeex na depuis deux mille dix neuf Macky Sall n'est même pas capable loolu dina leen ne non ça dépend du bon Dieu ça ne dépend pas du bon Dieu ça dépend de toi Macky Sall élection yi li dépendre ci yow Macky Sall loolu lañ lay wax xam lan moo dépendre ci yow Macky Sall moo nekk nga defal ñu. canalisation ba nga xam te ne ndox mi bu maam yàlla wàccee canalisation yóbbu ndox mi loolu ci yow la dépendre Macky Sall xam lu dépendre Macky Sall ci yow te defoo ko sa wareef mooy mandat maire yi ba mu jeexee depuis 2019 nga organiser élection na nga ko war a organiser comme nañ la defaloon nga doon président de la république ba am ay maire loolu ci yow la dépendre ñun foofu lañ lay woo c'est-à-dire on t'appelle pas dans un discours de bébête pour que tu ñun faluñu curé ah Macky Sall ba ñu doon dem di voté ji newuñu woon na yow yaay curé bi waxuñu lool nga ñëw waar ñu ni konoon foog naa ni ku ci nekk sëriñam lay fal ne ko kaay doon président de la république ñun ñu dem fal cardinal ni ko kaay nekk président de la république mais ba ñu demee ci urne ba di voté président de la république c'était pour am koo xam te bu ñëwee day régler assainissement bi day régler dëkk bi lépp jaar yoon mais mun a barji maa leen nuyu bu baax a baax mais tey le gars il vient commencer di leen defal discours du mel ni moo leen gën a xam yàlla yow fàttiya bu bu bu mët sax bu yegg sax munoo ko réciter maam mi sax wóor na ma ne boo ko tegee fii sax li ma xam sax si seen wax si seen diine bariwul de woo na ma la ma ca xam sax moo ëpp yow Macky Sall la nga ca xam léegi tu viens nous parler du bon Dieu yàlla mooy wàccee taw yàlla mooy taw man mënuma tey taw mënoo tey taw dëgg la mais war ngaa mën a fal ñi nga xamante ne bu taw bi tawee ñu mën a régler situation bi ba ndox ma am fa mu jaar foofu lañ lay woo Macky Sall di nga ca tubaab ya ngay dem xam nañ ne Macron mënul tëye taw mais buñ ko falee moom Macron c'est pour que mu defar ay canalisation ay écoulement d'eau ba nga xam te ne bu taw bi ñëwee nit yi nekk seen jàmm yow mënoo dara tabaxoo defaroo tojoo la ngay def yépp dara baaxu ci Macky Sall daaw damaa leen nuyu bu baax a baax yaa may mën a bàcc Macky Sall c'est le gars le plus débile mentaux que je puisse connaître dans ma vie au fait des fois tu regardes le gars dangay xool Macky rek nga ne kii nit la kii naka la def pour tomber aussi bas au fait parce qu'il sait même pas pourquoi il est là mooy da fal koo xam te ne xamul lan moo tax ngeen fal ko parce que lui un homme est conscient il est conscient qu'il est bébête qu'il connaît rien il est nul Il se pose la question pourquoi vous m'avez élu parce que se mettre devant tout le monde et dire que pour imaam yàllay wàccee ndox mi loolu mooy xamul lii lan moo tax ñu fal ko léegi nag bu fekkee dafa taxaw won leen ne moom xamul lan moo tax ñu fal ko ñun ñi ko fal ñun ñoo ko war a won lan moo tax ñu fal ko moom balaa mu doon falu xamoon nañ ne maam yàlla da doon exister Macky Sall say duul mu ngi fi ñu dajaleel la ko paquetasal la ko ba mu baax tegal la ko. yow ba nga ñëwee woon yow xamoon nga ne maam yàlla day exister nga joxe woon promesse que ne euh, inondation dootul amati Sénégal yow yaa ko fenoon yow Macky Sall yaa ko duuloon duul bu pataa puuf xanaa boobu ba nga doon fen fen boobu xamoo woon ne maam yàlla day taw te mënoo téye taw bi. xam nga dañ nekk Sénégal boo xamante ne nit yi dama xamul lan moo tax ñu ragal. mbindeef bu rëy bii Boubou sàll lan moo tax ngeen ragal ko man loolu moo may jaaxal pourquoi vous avez peur du gars Macky day dee dangeen di dee Macky Sall day dem duus dañuy dem duus Macky Sall day lekk bu lekkulee day dee ñun tamit bu ñu lekkulee dañuy dee on est on est comme lui au fait lan ragal ci Macky Sall ngeen génn dee toog dee affronter Macky Sall wax ko dëgg Jean Ousmane maa lay nuyu bu baax a baax. da war a toog wax Macky Sall juróom-ñaari dëgg teg ko ci table wax ko dëgg xam nga comme amul ku koy wax dëgg dafa ñoo xam ne dañ koy Adama maa bu baax a baax. non bi yow Adama yow am dara yow dama lay punir yow euh, Macky Sall boo leen ko dëgg man sama petit Macky Sall boobu noonu le petit boubou Sall kii dans le laa là boo leen ko waxulee dëgg ñun jigéen ñi nañ taxaw wax moom dëgg. parce que waxam Macky dëgg dafa jot yow ba nga boo demoon université MEDEF les discours débiles mentaux que tu prononces devant tous les sénégalais nga foog ne sañ ngaa dem taxaw ca tubaab ba ne leen ni maam yàlla mooy taw Macky koo yab man ki Macky Sall yab rek parce que tu es yi pour ce que tu fais au fait Macky Sall li ñu koy jox muy ñuux dafa ëpp ci li muy liggéey. Sall il faut nga ngeen won ko ne lépp lu mu am mérito wu ci dara dara dara dara dara y a rien tu mérites pas ton salaire au fait dire que Macky devant ses enfants il ose prononcer ce discours aussi débile wane ne moom mënul teye ndox mi comme si ndeyam comme si moom il n'est pas en pour savoir que euh, ndox mi am na dëkk tubaab yi am na tuyau de canalisation yu ma war a jaar mais Macky Sall koo yab xam nga on va revenir sur les conneries de Macky Sall Macky man euh, man Macky Sall j'ai jamais vu une personne aussi bête au fait tu prends des milliards pour faire un aréna tu te tu te dis même pas que fi nga teg aréna bi mën naa inonder parce qu'il faut mu am tuyau d'évacuation d'eau loolu il faut être vraiment qui s'appelle Macky Sall pour faire des choses pareilles sa xel bi màccul pour dire que des milliards avant de l'investir il faut des canalisations xam nga sénégalais quand on vous dit réveillez-vous ku nekk foog ne dafa yegg yéen ñi seen kër yi nekk ci ndox mi yëpp et que vous n'êtes pas assuré et même si vous êtes assuré vous êtes mal assuré yéen ñëpp seen kër yi ñàkk ngeen ko bokk seen kër yi vous avez perdu vos maisons au fait fondement bi mooy fondement wu kër gi seen fondement wu kër moo nekk di bouger. di nga fondation wu kër yi kër yi yëpp da ngeen di jékki-jékki ngeen gis kër yi wengalu parce que après suuf si day rek day dafay wow mu delluwaat suuf si mooy delluwaat bu ko defee seen kër yi mooy bouger imaginez-vous koo xam te ne par exemple dafa jël cinquante million tabax ko ci kër étage lépp ba mu baax meublé ko non seulement vous perdez vos meubles mais seen kër yi mooy bouger bu commencé bouger nag à long terme mun na daanu ci yéen da di nelaw xaaju guddi ngeen gis kër gi effondré wu rey seen doom yi wala mu rey leen yeen ndax lan da sàggan da sàggan parce que tey entendre un président de la République faire un discours pareil devant un un mun naa ne lii catastrophe naturelle la bu tey nii non tu te dis le gars il est où on est où tey ñu bari dinañ leen jox tey ay millions ils vont prendre des millions doo leen consolider seen kër yi parce que je connais l'esprit nègre au fait Macky Sall bu leen joxee euh, Jacques maa leen nuyu bu baax a baax bu leen joxee ay millions ak Jean Ousmane au lieu ngeen defaraat seen kër yi je connais l'esprit nègre dañuy dem jëndaat beneen kër. mooy dañuy jël ay kaka dajale ko léegi su ko defee bii kër day gën di effondré wu di yàqu ba rey leen yéen ngeen dee ci beneen kër gi sax doo leen ci profité ñun dañu dund inondation ñu xam conséquence su inondation sama kër inondé woon li ngeen di gis nii dafa inonde woon fii moon di ngeen fii mu yem nii ba ci plafond bi deux mètres vingt d'eau je l'ai eu chez moi un an après un an après mairie bi ci boppam dañuy yónneewaat ay journaliste ak nitu mairie bi ñu ñëw mesurer xool impact yi nga xamante te pourtant assurance fayoon nañu ba pare pour xool ndaxam amulaat yeneen dégâts parce que dafa am ay dégâts pendant l'inondation et des dégâts qui peuvent se manifester un an deux ans après tey ñëpp a ngi xool xaalis bi vous regardez cet argent là ça ne va pas réparer vos préjudices lan moo mën a téye lan moo mën a delloo si dundu personne y des gens qui mourront tout de suite comme ñi ñuy électrocuté comme ñi noyé wu mais après noyade bi seen kër yi nar a effondré wu seen kër seen bien seen kër yi nga xam te ne ça ne vaut plus rien du tout même boo leen ko doon jaay ça ne vaut plus rien parce que kër gu fissuré wu kër gu dëng kenn du ko jënd di ci def ay millions tey le gars il vient vous dire oui euh, de les façons euh, c'est le bon Dieu qui ramène la pluie yàlla daf ñu may cerveau bu fekkee ne yow Macky Sall yàlla mayu la cerveau pour wane ne ne plus bi bu ñu ko yàlla wa waxee ne ne chaque année da koy wàccee may na ñu cerveau boo xamante ne mun nañu defar ay canalisation ay gouttière ba nga xamante ne ndox mi dafay jaar ci tuyau d'évacuation yi yàlla wàccewul taw bi rek ba ñoo may xelam bu fekkee ne yow amoo xel ñu génnee la fi teg fi ku am xel boobu bu fekkee ne yow Macky Sall amoo xel pour def canalisation ñu teg fi ku mën def ku am xel mën def canalisation bu fekkente ne amuñu ministre de l'environnement bu fekkee ne amuñu ay architectes yoo xam te ne mën nañ toog waxtaan ak population bi conséquence bi pour qu'il prépare après l'inondation ñu mun a xam ban danger la ñu nekk parce que tey j'en suis sûr qu'ils vont pas préparer des gens l'année dernière on a regardé une maison bu nekk Touba jékki-jékki rek effondré wu ñëpp naan allahu bar du yàlla moo ko effondré ndox yi nekk ci suuf yooyu yëpp mën na ko effondré wu parce que day dem ba fondation bi du baax da koy yàq ndox gis ngeen ni muy def ci fer ndox day ruyeloo feer feer la ñuy fer yi ñuy def noonu poto yi ñuy def noonu pour pour pour tëye miir yi pour mën def euh, euh, duñ koy waxatee fondation bi loolu noonu bu xoojoo ci ndox day ruy bu ruyee bu demee ba ruy ba ruy ba ruy dootul mënati tëye kër gi bokk. mooy ne regardez pas parce que ñun on a tendance à regarder la façade extérieure parce que ndox mi dina dem après nit dañuy peinturaat kër gi après ñu continue def li ñuy def xamuñu ne ñu ngi nelaw ci kër goo xam te dafa nekk dañu nekk seen vie dafa nekk en danger ils le savent pas tey conséquence su ndox mi doo dégg sax nit yi di ko waxam y a peu de gens qui parlent des conséquences de l'eau suuf day lekk di noyyi di taabeeku di noyyi yi le la terre bouge au fait bu bu ndo bu bu naanee ndox bu ba dafay bàyyeeku day gën a rëy rëy rëy suuf si day bàyyeeku bu woowee gis ngeen ko sax benn koñ boo xam te dafa am commencé ndox bu ndox bu suuf bi demee da ngay gis euh, suuf si nu muy dànkaloowee tey loolu conséquence bu rëy la ci seen vie sans compter les maladies qui vont venir après waxuñu rek coronavirus tey dingeen sol masque ngeen di dox ci ndox mi mais bactéries am na bactéries yeeg champignon yeeg virus yu gën a garaaw yu gën a féroce coronavirus yéen a ngi nekk en contact ak yooyu Macky sàll yàpp leen moom même un moment de souffrance avec vous il en naa rien mais nit nag boo bëggalee sa bopp kenn du la ko bëggalee am gis nga tey. Kër Masaar bu ñu amee fulla am fayda seen maire boobu lañuy dem bule ndayam bule màndaawam jeex na bu leen fi wutati maire bu ñu leen imposé ti seen koñ yi maire boo xam te ne am na 20 million ci taas ak yéen ñi nekk ci koñ bi ngeen cotiser benn nit koo xam te ne wóolu ngeen ko gis ngeen ne xam na jàngoro waa koñ bi ngeen teg ko fi jox ko salaire fixe ngeen gérer seen bopp seen budget budget comme saa ñëpp askan bi nekk ci koñ ba yëpp mun cee gis seen bopp. boo leen ko defulee ces politiciens qui vous ont déjà volé là eux tous ils déjà volé ñoom ñoo am 20 millions ñoom ils chaque chacun 20 millions moo tax Macky Sall joxe mandat wu 20 millions ñoom dañuy ñëwaat toog nekk entre copains toog di lekk tey nag il faut que nee naa doole baadoo la moo nekk solidarité. parce que ñun malheureusement cette solidarité que ñoom ñi am riche Macky solidarité bu mu am avec ses copains riches là ses copains voleurs riches du Sénégal jusqu'à imposer vingt millions pour que baadoole bi bañ a doomu baadoole bi bañ a am accès pour bañ a nekk maire ci koñam te pourtant doomu baadoole bi moo xam problème am tey baadoole bi baadoole bi ñoo xam problème bi am ci koñ bi le riche n'a pas de problème léegi bu ñu jëlee bi nga xam te il a pas de problème lui dire viens gérer les problèmes des des pauvres kooku il en a rien à foutre des pauvres moo tax tey koñ yi nekk Géejawaay Pikine Kër Massar ñi nekk ci village yi ay ndengeleer cotiser leen ngeen defal seen meeru bopp defal leen seen élection commencé leen dès à présent di gisante yéen population bi di waxtaan ci seen biir ngeen tànn ki nga xam te ni moo leen gënal ngeen ubbi seen kees wala bu amee koo xam te ne tane na fa ngeen jël ngeen xoolal même bu fekkee ne waa koñ bi yëpp ñooy mobiliser wu dem banque ñu lebal leen 20 millions ngeen ne yéenay tànn seen bopp maire maire bi ñëw toog defal leen yéen li ngeen bëgg salaire fixe ngeen di ko contrôler am vue xale yi nekk ci koñ bi leen xale yi nekk ci koñ bi ñu dem di gëstu li xew ci maire yi xale yaa ngi nekk ci mbedd bi liggéeyuñu pourquoi vous payez des vieux clochards pour ñu doon seeni maire di lekk seen xaalis Thiam Toro maa lay nuyu bu baax a baax tey allez voir le ñaata fonction la Mansour Faye occupé combien de fonctions des marchés à gré loolu yëpp ñu koy joxante seen biir léegi ñun baadoole bi ñu war a ñàkkaat fayda ba ne léegi maire bi tamit si ñoom ñun dañuy demaat encore tànn ko ci ñoom mu ñëw encore du ñu sàcc arrivé à un moment il faut dire stop arrivé à un il faut que tout le monde s'y met mu leen fi toog di yalwaan matin midi soir seeni maire doon ay der ci seen kaw parce que budget bi defuñu ko fañ ko war a def vingt milliards Parcelles Assainies vingt milliards Diop Sy nee na def na fa vingt milliards dem leen xool Parcelles Assainies est-ce que am na vingt milliards yu fa dugg koñ yooyu ma gis ñu génne leen ay photo yoo xamante ne ne la nii la bi mel lii lañ ci def mais c'est du n'importe quoi les photos ne correspondent même pas à la réalité vingt milliards vingt milliards ñaata jeune la munoon fay pendant cinq ans vingt milliards ñaata emploi la waroon fay est-ce xam ngeen maire lu mu war a dégénérer yépp ak ñaata emploi la maire yi war a créer maire yi war naa jël ñay bale ca mbedd ba seen xale yi toog ci mbedd bi amuñu liggéey amuñu diplôme tey jii waroon nañu mën a dem ca mairie ba ñu di leen fay ci vingt milliards bi mbedd bi set. vingt milliards yi waroon naa defar écoulement do canalisation vingt bu ko Diop si defoon géejo bu ko dégg Diop si defoon Parcelles konoon amoon ngeen euh, euh, écoulement d'eau canalisation mais loolu yëpp vous regardez vos maires. faire du n'importe quoi te amul kenn kuy jóg taper sur la table et dire stop tey xale yi lay wax xale yi l'avenir c'est vous di nga boo leen jógulee seen héritage mooy mbënd mbënd lañ leen di waccal fii héritage bu fekkee ne seen yaay yi seen pap yi seen tante yi seen nijaay yi jóguñu xale jóg leen mbënd ngeen lañ leen di waccal héritage seen doom yi bu ñu ñëwee di xuus kan moo ñaan yàlla doomam xuus tey lu dépendre ci yéen mooy maire yi te maire yi c'est très important parce que di nga tey opposition bi bu amoon le maximum de maire yi déjà dinañu mën a contrôler bu baax élection campagne électorale yi di ñëw en 2024 di ngeen ko mën a contrôler parce que di ngeen xam nombre de population ba fa nekk bureau de vote yi di ngeen ko gën a mën a sécuriser di ngeen mën a gën a sécuriser commune bi moo tax ñëpp war a engagé wu ci municipal yi ñu nekk ci diaspora bi amuñu problème parce que ñun suñu baju kanam ñu ngi koy fajal suñu bopp ñun bu élection jotee ñun dañuy taxaw siège dem xool la mu xew moo tax ñun gis nga ñun ñun waa Sonko on est fier de parce que fañ dul sàccee élection ñun fa la ñu gañee fépp fañ dul sàccee élection fa la ñu gañee xam ñun man nee naa je bien placé pour tontu waa Idi mais très bien placé pour vous pour tontu leen parce que ñamal nañ leen Paris. fii de doo leen ubbi seen gémmiñ Sénégal ngeen di dem fa ñuy sàccee élection Macky Sall sàcc sàccaa leen mais fi ñuy defee élection transparente nga xam te ne kenn mënu fa sàcc élection yéen waa Idi boo leen fa ñëwee doo leen gagné mais nag ma leen leen depuis 2019 l'Union africaine combat wam yépp nee na ci corruption la ko def dina neex de xeex bay neex li nga corruption boobu mu ko def noonu bu ñu xoolee suñu kandidaa yi fi jaaroon yëpp ak ñi fi toog yëpp ña bëggoon nekk président de la république yëpp ak ña des bañ ko seggee ba ñu seggee ñëpp mu des Idi Sonko ak Macky Sall ñoo nekk trois premiers yi Macky sàcc la ci corruption boobu noonu affaire bi waaj a te ñu koy togg te mu ngi waaj a ñor ndax yaa jabaru Yaya Jammeh gelé nañu compte am yi fële États-Unis ça c'est le combat de l'Union africaine te dafa am nag ay institut yu xarañ yoo xam te ne ngi ci ginnaaw loolu on en avait parlé depuis 2019 président Guinée équatoriale euh, vice président Guinée équatoriale bien wam yëpp saisir nañ ko maa ngi ñëw de ñu ne la Alassane Ouattara saisir nañ ci moom deux cent millions maa ngi ñëw de jeexagul de ñu ngi wàcc de affaire baa ngi ñëw mu am ay ministre yu sew sewaan yoo xam te ne tey jii ñu ngi leen di commencé di jàpp ci yenn pays africain yi ngeen xool ni politiku Sénégal tëralee politiku Sénégal da ngeen xool ni mu tëralee parce que il faut avoir l'habitude d'observer son environnement man j'observe beaucoup mon environnement Macky Sall je l'observe beaucoup ngeen gis depuis pas mal de temps ils achètent des ils se partagent des 300 hectares hectares sàcc yi xam nañ ne bu ñu génnewee Sénégal seen xaalis dañ koy képp mu am lu ñëw nag dimbalewu leen benn yoon mu nekk Covid bi gars yi dañ ci bàyyiwul xel de mu nekk crise bu rëy bu ñu demee ba nga xamante ne ay autorité libanais ñu gelé seen compte yi ba mënatuñu fay seen scolarité doom ba seen doom yi ñu jël leen delloo leen seen dëkk Liban seen président décrété avion mu ñëw jël si seen doomu autorité yi parce que mënatuñ leen fayal te ñoo ñu viw pacha lañ doo dund fii xale ñu delloo leen Liban Macky Sall xam ne lii ñëw lii xeeñ ça s'en sent pas bon de ñu commencé yëkkati ça vous surprend ñu yëkkati 300 hectares jox ko euh, Babacar Ngom ñu yëkkati 2000 hectares jox ko Youssou Ndour ñu yëkkati ay hectares jox ko ay kon mais arrivé à un moment mais réveillons-nous il est temps de se réveiller ils investissent kala doon sàcc di ko rawale di ko yóbbu feneen léegi dafay ñëw di la sàcc à barbe et à ta euh, à et il dépense devant toi parce que lu tax ñuy def loolu parce que maîtriser nañu le milieu sénégalais parce que dressé nañu le maximum de moutons yoo xam te ne tey jii ñu ngi topp seen ginaaw ne leen ñoom la ñoom la ñoom la parce que au Sénégal rien n'est informatisé un beau un petit une petite vendeuse de carottes peut venir demain et dire qu'elle est kan mooy ne du milliardaire personne. lan moo tax Sénégal ñu bëri jaaykatu drogue yu bëri di dem di installé au Sénégal les gens de faux billets yooyu noonu parce que les milliards dans les banques ne sont pas contrôlés xam bu milliards yi ci banques yi ñu doon contrôlé fii France rek amoo droit di doxantoo 1500 euros dans ta poche tu n'as pas le droit dañ lay jàpp. fii dañu def ba ñëpp am compte bancaire pour que état am vue ak controle ci seeni yëf internet bi ñëw nag gën a renforcer contrôle boobu noonu moo tax tey lu Afrique soxla mooy ay jeunes yu gëm seen bopp tey en plus de ñoom li ñuy def ak union africaine li muy def parce que ndimbal da ciy fekk loxo borom mooy bu union africaine ne dañuy jóg xeex contre la corruption Mais ñun nous le peuple sénégalais on doit pas être corrompu parce ñun dañuy doon franc ci loolu nga xamante ni bu subaa moo ñu war a dimbale moo war a jàpp suñuy sàcc ba xaalis bi ci ñun mooy boo leen gisatee yu mel ni yu moom Marème Faye Sall di dem di sànni suñu xaalis mais ces genres de il faut le dénoncer il faut le dénoncer vidéo yooyu noonu dañ ko war a jël jàpp ko sàmm ko. boo leen gisee doomu du euh, euh, mu tuddati euh, ministre Aliou Ndiaye boo gisee doomam bi génnee aliasu xaalis l'enfant ne l'a pas travaillé kooku ñëw na leen war leen ne ne leen ne sama baay sàcc la ça c'est des preuves yoo xamante ne irréfutable à son âge il peut pas avoir autant d'argent c'est pas possible dans un pays aussi sous-développé est-ce que vous connaissez le pouvoir d'achat des Sénégalais Et moi, le pouvoir d'achat des familles sénégalaises, je vais vous le sortir sur le net. Némenou, un Sénégalais vit, un Africain vit avec un centime, un euro par jour. Au maximum, un euro par jour. Donc, nous, 7 euros en moyenne, nous utilisons par semaine. Au maximum, en moyenne. Pour calculer, 7 euros par semaine. On est 15 millions d'habitants. nit yi bu ñu changé télé balaa ñuy changé waat télé yàlla moo xam bu ñu changé frigo balaa ñuy changé waat frigo yàlla moo xam bu ñu changé canapé balaa ñuy changé waat canapé yàlla moo xam man je ma rappelle ñun suñu famille benn canapé la ñu amoon sama yaay ndeysaan bu demoon ba màgget da koy dem yóbbu ci tapissier bi mu changé tissu bi ñu on continue contrairement à la France où les gens ils changent tout le tout le temps tout le temps Mais un pays où le pouvoir d'achat est aussi faible, comment on peut se créer des milliardaires comme ça, chaque bout de champ Mais yeewu leen yeewu dafa jot sëgëm France bi nga xam te ne pouvoir d'achat bi moo gën a élevé le SMIC remonte à mille cent mille cent euros ñun suñu SMIC à peine cent cinquante mille la cent cinquante euros segam France moo mënul créer ay milliardaires comme ça waxuma la Afrique lii may dellu si di wax ces nègres là ces nègres voleurs là parce que vous êtes bête ñun ñuy dund ak tubaab yi mun nañ leen wax ñan ñooy tubaab tubaab lu mu leen bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg le président Macron ne va jamais accepter que Macky Sall lu gën koo riche da ngeen sàcc di sàcc di sàcc di sàcc ay milliards di dajale di dajale di dajale ñoom ils ont vu de de dehors tey crise bi ñëw na. dañuy geler seen compte yëpp un voleur volé chez Leblanc n'est pas un crime crime kan mooy perdre dans l'histoire yéen parce que toroxal ngeen seen askan rawal ngeen seen xaalisu askan te doo leen ci profité jamais jamais au plus grand jamais mais ñun en tant que sénégalais lan lañu war a def ñun en tant que citoyen pour préparer un avenir meilleur qu'est-ce qu'on doit faire ça ça doit être le débat de tout le monde tout le monde tout le monde parce que l'avenir est là entre nos mains ñun ñoo yor suñu avenir ñun ñun ñooy dem voter bu ñuy dem voter xam nañu lan moo tax ñuy dem voter ces petits larbins de de ces petits larbins parce que dafa am yenn dafa am politiciens yu mag yi am markatutaat yi deuxième deuxième division yi moo nekk li petits élus des des quartiers là les petits élus vauriens des quartiers là yi nga xam te ne dañuy topp ci benn eh, ci gin benn ginnaaw maire yi saa bu ñu soxlaa dépense dem nekk ah yow di ni nga ma comme ni Aïssatou Fall doon wax yow de yaay gar mi de yaa mën mayee ñu may leen dix mille cent mille euh, un million pour ñoom ils sont dans quelque chose ces mooy li les petits élus qui vont ramener des petits sacs de riz des petits sacs d'oignons pour deux trois personnes dans le quartier pour que ñooñu mën a indi seen mbokk ñu voté leen ñooñu ñëpp ils sont dans le système il faut les rayer il faut un système moderne man sama ville bi ma nekk nii maire bi jigéen la jigéen c'est une joxewuloon vingt million pour nekk maire te foog naa ni bu amoon vingt million da koy jënd oto bu gën oto bi muy dawal. damay xool salaire u ñaata la maire bu nangu mise boobu noonu ma ne candidat yi dem bu ñu nangoo mise ñu leen di imposer vingt millions da leen neex parce que bu opposition bi yëpp jubboo woon mànkoo ne kenn du fay vingt millions yooyu noonu et qu'il faut l'égalité des chances tey munoo leen boo leen demee ambassade États-Unis doomu Macky Sall bu demee njox ko visa yéen boo leen demee doon def doo leen am visa c'est une discrimination Fall Khadim maa nuyu bu baax a baax yéen vous êtes discriminés du point de vue Europe bu ñu leen doon tirer kenn du leen defendre lu leen desee mooy seen dëkk léegi seen dëkk boobu nga xamante ne tey foofu ngeen waroon xeex pour am tous les droits on vous prive le droit de vous présenté comme maire parce que vous n'avez pas 20 millions mais koo leen yab Macky Sall koo yab Macky Sall sa ndey bi daan jaay kaaf caaf dafa amoon 20 millions ci compte sa baay bu daan nekkoon gardien dafa amoon vingt millions ci compte est-ce qu'il avait vingt millions dans son compte sa mère sa baay bu ñu amoon vingt millions doonoon dem di lebi ji dépense arrêtez de vous foutre de la gueule du monde parce que am na yoo xamante ne c'est pas normal te Sénégalais yi ñu ko accepter man je veux pas me présenter mère mais je trouve inadmissible qu'on limite la chance des gens et lu Macky Sall wax rek ñépp mu am ay cons yoo xam te ne ils sont toujours là dire oui oui oui il faut apprendre à dire non nit dëgg day nangoo bañ dire non là où il tey ñi topp buur yépp je vais en revenir hein parce que tey Sénégal boo calculer y plus de mourides que yeneen yeneen yeneen confréries yi ñu nekk ñu ñu naw lool. ndaxte dañu am benn sëriñ bi ñuy wax sëriñ Touba dafa bañoon topp ci ginnaaw tubaab bañoon jaamu tubaab kon tey képp kuy murit waruta nangu nekk jaamu Macky Sall ndax Macky Sall jaamu tubaab bi la dégg ngeen ma fi ma waxee seen ki leen jiite nanguwuloon nekk jaamu tubaab bi kon yéen ñi ci topp waroo leen topp ci jaamu jaamu tubaab bi. non il faut dire non te waxuma lenn rek de Serigne Touba boobu noonu dafa nekk référence su sénégalais yëpp képp ku nekk sénégalais sa référence la parce que bëgguloon topp ci ginnaaw tubaab bi nanguwuloon doon jaamam léegi ñun lan moo tax ñu nangu topp ci koo xam te ne jaamu tubaab bi la mooy moom ki ju ki nekk euh, chefu Macky Sall sax Serigne Touba nanguwuloon nekk jaamam. léegi ñun waxatuñu sax nekk jaamu Macron mais léegi dañu bëgg a nekk jaamu jaamu Macron mooy dañu wàcc échelon daal on est tombé trop bas on par rapport à à nos ancêtres yëkkati leen niveau bi waay nañu bañ topp ci ginnaaw jaam jaam du am jaam jaam bu amee jaam rekk ña cay topp yëpp ay mala lañuy doon Macky Sall warul am jaam Sénégal Macky warul am si booru ñi si booru Macky tey war nañ toogaat xoolaat képp kuy murit ko képp kuy sénégalais waratu la nangu doon jaamu Macky Sall jaam doon jaam un esclave reste un esclave la preuve on est que c'est un esclave bu ñëwee France amul màkkaaba tubaab bi bu amoon coronavirus sax du amul màkkaaba sol masque si kanamu tubaab bi mooy jaamu vraiment bu ñuy ne jaam yi mais ci haut niveau jaam yi ki nga xamante ne jaam yi xam nga ay échelon la ay majordome mais jaam bi ci gën a nekk majordome ñun moom lañu for mu nekk Marème Faye moo nekk Macky Sall la ndeysaan yàlla nattu ko nag mu ñuul mel ni maam man loolu rek moo ma jaaxal parce que danga daan gis alpulaar ñu la ay eh waay ni mu xeesee ni mu rafetee yàlla ñëw nattu ko rek mu ñuul mel ni maam yenn saay sax day lonet yii nii day lonet yàlla da koy gën a ñuulal nii plus muy jege tubaab bi di nga jour ba mu demee bañ a sol masque bi jour boobu la gën a lonet ay waay